kii àddinaa ko nangul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 nekk ci àddina bi dalay seetal génne la ay sarax soxna Nafi dafay seet ci ndox dafay seet ci petaaw day téye sa loxo danga koy woo téléphone whatsapp normal mu lay wax lu mel ni talaatay ndaar asalaamaaleykum mbokkee tournati di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre ah. te ne fii ci Gambia ba tey ñu jàmmaarloo ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def tey eh, face to face tey nag eh, ñu ngi fii ci ba tey eh, nu mu tudd sax ah, ah, hôtel lan. Paradise waaw tey ñu ngi fi ah borom Paradise dagg ko Paradise ba tey ñu topp ñi nga xam te ne ñoom ñooy mbëri Jacob Baldé nag moo war a jàmmarloo ki nga xam te ne moom mooy Mathieu Préra waaye Pikine ba tey écurie Waalo ba tey Jacob dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ndax kombam ak Mathieu gannaaw bañ jëlee Mathieu Préra maa ngi lay ziar. delloo ziar ñëpp tamit di sant yàlla. julli si yonente bi waaw di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. di ñaanal seen papa fu mu tëddee am na suuf ci kawam mm-hmm. suñu maam suuf ci kawam ak mooy dawlu rek mm-hmm. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Sakho tey nan nga gisee ci initiative bi xam te ne waa Alburax def nañ ko surtout yéen ñi xam te yéen ñi indi leen fii ngeen war def li nga ne moom mooy face to face sant yàlla rek di leen ñaanal baax a baax a baax bàyyi yàlla na yàlla yàlla gën a wax ku mënam daal mm-hmm. loolu daal day ëpp ci lu ñuy wax mm-hmm. initiative mm-hmm. gannaaw nag ba mu jugee ci combat ak yi xam ni moom mooy ndigal suma juma nga def benn recul nga ni nga def benn recul dama la laajoon sax na lan moo tax doo bëre nga ne ma dama bëgg a dugg ci lutte simple ba ci kanam pour mën a natt sama bopp ñu gis la nga jël Mathieu Pereira lan moo xew. waaw xëy na dañoo waroon bëri rek dañoo war a sax laay wax dañoo war a rek combat bi taxaw. Hmm. loolu kese la. mais yaakaaroon euh, doo kii doo bëreegum nii da ngay dem nax sa ci ba pare. non maa ngi waaw maa ngi ci lutte simple bi ba léegi de ba léegi hmm. génn ba ci de. Hmm. ñu boole combat bi ak lutte simple bi rek. ok lan moo tax nga bëgg géej waaye dugg dugg duggaat. peut-être est-ce que def waa géej waaye ba bëgg <laughs> di ñaan nag ndam ah. ndam lu koy sama njot ah. waaw di ko ñaanal Ama di ko ñaanal Pokola ak Babacar ah. ak waa Pikine yëpp booy ñaan ama seen mburu Pikine yëpp mhm. nga jël Mathieu Pereira Mathieu ñu laaj ko mu ne combat daw na ko ba sonn mais da nga koo da sës ci miiru wis bi mhm. lan moo tax tey nga def choix boobu noonu puisque sa adversaire bëggul woon combat bi. man def ma choix boobu de. peut-être promoteur yi ñu koy wax. man dañ ma wax rek man leen bëgg naa. ku jógee si defet moom yaakaar naa doo taamu. Ah. mu ngi noonu. nee na moom dafa bañoon ndax di sàmm relation mais yow sàmmoo relation. waaw peut-être moom relation am koy sàmm mais man moom. Hmm. sama gagne-pain laay xool <laughs> damay xool lu may jëmale kanam. Hmm. xool tamit na laay def ba relancer sama carrière hmm. mais relation bi moom du mu sa yàqu. loolu moom du ma sa yàqu ñaanu ñu ñu yàqu ko. nga jël ki nga xamante ni moom mooy Mathieu ñu ne nag bii mooy combat bi ndax Mathieu day bëre day xeex. Mhm. te est ce que mbër mu da mu daanoo ak mbër mu daan dina dina xaw a metti. non bokkuñu parce que moom day ñu ngi ci confiance. Mhm. ñu ngi ci ay dynamique de victoire macha allah. Mhm. mais ñaan yàlla rek yàlla may ñu dab. waaw loolooy différence bi ñun ci defet lañ jógee. Mhm. kon dañoo war a redoubler effort bu baax a baax a baax a baax. Mhm. pour ñu ñëwaat ci compétition bi. mënuñu mhm. bari dañ ne ko combat nga am mais moom yow yaa parce que nee na yow sa modèle bëri na ak sa na yow ci li nga war a foofu la war a mën a basé wu foofu laa corrigé. waaw oh, modèle yi bokkul de. bokkul. déedéet. man du arrière xalaat du arrière du damay ñëw rek dóorante jàpp waaw. def ay action doo neer loola. Hmm, xalaatu moo ko sax. kon ma ci prévoir doo ko neer. pour la. ma ci. <laughs> ma ci bu àdduna si bu mu pexe day day dem sa ko ah. baa bi mooy papa. moo ko indi woon. waaw même ndigal bi sax mu ngi woon foofu gis naa ko muy xataraayu xataraayu métti. ba combat bi xawee yàgg noonu. Hmm. yàlla def na ni nag moom la. Ah. xëy na xataraayu yëpp dina ñëw wane boppam. ñu doon xataraayu. waaw si ñoom ñaar ñëpp. si ñoom ñaar ñëpp lañ. bëri ma ca ndaama la boo xamante ni dafa sotte. Mhm. day curux curux. waaw yàlla baax na. Ah. yàlla baax na yàlla ji yàlla yóbbu ak jàpp. Ah. incha allah fi nga jógee moom moo tax wala combat bi. non soo jógee si defet lan ngay wax dara lay wax da nga war a ñëw confirmation wala. ñu xam mbër nga wala doo mbër. waaw ci loolu lañ jógee nii. mais jógee ñu si loo xam ne di wax wax bari sax. wax dëgg fa ne yàlla. da nga am euh, ko sànq Babacar am combat. Pokola am combat Ama am combat. Mm-hmm. waa Kër Falla yi macha allah am combat. mais non pression boobu noonu euh, psychologiquement est-ce que yéen a ngi pression amul foofu. dimanche dimanche dimanche dimanche la rek. waaw. 5 dimanche wala 4 dimanche. 4 dimanche. waaw. doo kër gi gis nañ loolu kër goo xam ne bañ ba léegi bëre rek la ñu xam. xamuñu football xamuñu jàng xamuñu biro xamuñu dara de. bëre rek. man dong maa si soogoon ne di jàng kër xawul ba dugg ci. mais gëm nga ni mën ngeen koo réussir rek. incha allahu rabi à 100 pour cent. ndax xol yi benn la yéene yi doon benn idée yi doon benn. ñooy jugandoo ñooy bàyyandoo mais am na loo xamante ni yàlla dong lañ cee xaar mais xalaatuñu ci leneen. Mm-hmm. Ama Modou Lo nan nga gisee boo déggee gars bi du am ñu ne Ama parewul day saale léegi nañ Modou lu mu wax. Mm-hmm. mu ne combat bu dee suba suba pare na dafa bëgg a bëri yéen benn yoon. Mm-hmm. mu jeex quoi parce que wax ji dafa bari. <laughs> waaw di ñaanal Ama ndam ba pare. waaw combat bi moom yàgg na torop yàgg na ci ñoom ñaar ñëpp métti na tamit ci ñoom ñaar ñëpp mais Ama la ñu ñaanal dem baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. Ama waaw ci kanam soo ko gisee di ngeen xam ba xam pare na wala parewul. Mm-hmm. <laughs> waaw blessure bi Ama la. ah faj na ko ba wér. wér na moo Ama su damoon sax dina bëri Modou Lo. Ah. ah su nekkee Modou su nekkee la 5 dinañ bëri ñoom ñaar incha allah rabbi su demoon sax dina ñëw stade bëre si ndax mënoo topp nit 10 ans di ko ko dem ba cappaandaw bi nga naan da ngaa blessé wala yooyu noonu non xalaatul def loolu le fait que muut na moom xam nga ko parewul moom pare na mu ne moom na le mm. bu doon suba suba pare na ñu gars di laam-laamee Modou lu tax mu wax loolu dafa mel ni comme si fekkee ne ah, amul leen lu xaw a changé tuuti non peut-être changement amu fi affaire yi fu nekkoon ñu ngi fa ba léegi chiffres yi fu mu nekkoon ba léegi ñu fa. ba tey chiffres yi waaw benn changé benn changé. gë nga diis ñëpp a ji. perte repère bi ñoo ci amoon. perte repère ngay nekkee ay xale yu apte di compétir. Mm-hmm. ngay perte repère. meilleure saison daaw peut-être gars yi suñu waxee dëgg rek. Mm-hmm. war nañ ko jox Pokola. waaw nu mu def daaw. Mm-hmm. moom ak talfa suma juumul ak bu ndaw luñ def daaw dafa ëpp seen génération presque ñoom ñu yëngal kenn yëngalu ko si de ku si nekk teg na trois victoires suma juuma le baax a baax wasin Sine dañuy ñëw waa Sine waa Sine populaire yi <laughs> <laughs> ak waa Sadika ah, ñen ñee moo hmm? allah moom moom moom toujours loolu laay wax ku parewul moom doo ko daan ku amul doole amul fit ñeme ko doo ko daan de mm-hmm. ku parewul doo ko daan ku ëppul doole ñaar yoon tamit doo ko daan mm-hmm. Mm-hmm. mais ñu am ama dafa xaw a manqué que dafa xaw a jeex tuuti par rapport ak Modou ah, pour man pata ngay wax sax comme que jeex na kay alhamdulilah naka bi yaay <laughs> dafa jeex kay macha allah la moom kay pata bi la ñuy wax. Hmm. waaw moom la moom mu ngi ci toog fal. mu ngi ci état mu ngi ci état moom. arbitre bi sifflé. waaw na dëggal ko comme nee na du daaw. waaw seen moom lu mu xewle. bàyyi ma ma téye ko. <laughs> ma ko moom est du daaw. kan nga neen day taxaw dëggal boppam. waaw waaw nag suñu taxawee dëggal boppam combat bi dina gaaw de incha allah. su dëgëree boppam. Ah. waaw ama kañ moom na taxaw rek. kay mm-hmm. benn problème. Mm-hmm. Mm-hmm. le a xaar ci yow incha allah. waaw di ñaanal suñu père suñu grand Eumeu waaw jour boobu mooy boobu bëri grand combat dañuy daan jàll ci yàlla rek kàttan yàlla ak baaxam. donc nag moom waaw kooku champion d'Afrique la. bu mu nekk moom gis ngeen poids lourd nu mu leen di def. waaw. moom waaw taqsir yëpp ak minti bat lépp a ci yaf ah yàlla baax na ko ba la douze ñaanal ëmb seen ndam bu baax xam na lu ko war ci combat bu baax waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp rek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 seet fépp foo ti nekk ci àddina bi dalay seetal génne la ay sarax soxna Nafi Guèye dafay seet ci ndox dafay seet ci petaaw day téye sa loxo danga koy woo téléphone whatsapp normal mu lay wax lu mel ni talaatay ndaar